gis nga euh, lu ma boole woon ak waa APR moom may boole keneen ëllëg mhm. parce que ñoom ñi ma xam xam nañ ne je n'ai jamais hésité à mettre la la mais dans la dans la poche pour la patte bi ñu bokk ñun kon su may ànd ak keneen c'est pas parce que damay xaar ne yow am nga moyen yoo xam ne mën nga ma jox wala mën nga ma defal déedéet su may ànd ak keneen da ngay gëm li ma gëm muy benn ñaar mooy nga jël engagement devant les sénégalais que ne man lii mooy suma programme. Mhm. ma gis sama bopp ak suma mouvement ci sa programme yow. bi ci topp mooy man dama gëm développement à la base dama gëm ne Sénégal soo ko bëggee defar da nga war a commencer par. développement local. développement local. Mhm. village yi. am na ay ressources yu fa am nga xool. nan nga mun a encadrer ces ressources humaines parce que à la base de tout développement il y a les ressources humaines qui jouent un très grand rôle nga jël ressources humaines ni nan nga ci mën a investir ci ressources humaines yooyu ba déjà ñoo am engagement ak volonté wu euh, euh, produire li nga xam ne lii zone boobu mën na ko produire muy benn soo paree nga jéem a xal xool nan ngay mën a créer une valeur ajoutée par exemple tey les produits de base yu mun ko trans ñu mun ko transformer defar emballage bi commercialiser ko à tous les niveaux man foofu man foofu lay wuyoo un un candidat à la présidentielle. Mhm. beneen bi si topp mooy dafa am loo xam kenn mënul liggéey loolu te ànduloo ak moom muy lan muy il faut ñu nekk ci état de droit parce que discipline même studio bi ñu toog su amul discipline du dem duñ def lu jëriñ Sénégalais. dëgg la ñëwuñ fi pour wane wu dañ fi ñëw pour wax loo xam ne ku ko dégg dina xam ne lii njëriñ a ngi ci. Mhm. mais donc da nga ko war a discipliner. alors bu ma ñëwaatee un peu un peu si si si Babacar. koo xamante ni méngoo na ngeen xam nga loolu nga ma posé mais su ma posé question boobu de soo déggee moo tontoo la ni ma la tont dama la bëgg wax ne la. moom day junj rek moom la tudd. cest à dañuy xaar nit ñi génnee seen programme teg. d'accord dinañ ci ñëwaat. Babacar ak seen gis-gis. ak seen gis-gis gis-gis ñu seet nag ñu yan condition la ñuy mën a ànd ak yow. Babacar dama gis ci sa présentation nga nekk chargé des sanctions.